بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni sunu borom rek mooy ki ko jago noo ngi julli di salmal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam muhammad ibn abdillah di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dëkkee dotti waamem xéewal ak yërmande ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain di ñaan sunu boroom mu boole ñu defal tawfiq ak taysir fi dunya wal axira dellu siwaat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko doon waxee ci dars yi weesu te wala nazaalu nukarriru insha allah ma dumna ala qayd alxayaa mooy waxtaanee dund saxaaba ya day mbokk yi solo si foo ko takk romb na ko li ko waral mooy ñoom ñooy taaliba yi njëkk ci taalibe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yarkat bi gën a foor te gën a màgg te gën a sell mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen yar ñoom ñooñu ca tibb ya njëkk ya la ñu tibboon ñoom ñooñee ca njàng mu njëkk ma la ñu jàngoon ñoom ñooñee ba yëf yi beesee tàq ci seeni loxo la doon tàbbi ay góor lañu woon ak ay jigéen yoo xam ni borom bi subhanahu wa taala moo leen tànnal boppam li soxbati nabi yi xam ngeen ne du benn waaye mooy bëgg a nekk saxaaba rek nekk ko déedéet waaye li abdullahi bin mas'ud doon wax yàlla moo leen tànnal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu tànnal yonent bi ay saxaabaam mu ni gaa yooyu ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu waaye xam bari xam-xam ñoo lépp xam-xam lu waay sell sell ñoo la gën a sell lu waay foor foor ñoo la gën a foor lu waay ragal ragal yàlla ñoo la gën a ragal yàlla nekk waliyu yàlla ci ñoom la fekk baax ñoo fekkee woon njàngale mu yees mu njëkk ma cër yéen amoon ci suñ borom keneen dootu ko amati ila yawmi alqiyaama ila yawmi albaathi wan nushur cër yi saxaaba yi amoon fa suñ borom yëg leen ni keneen dootu ko amati amul nag kuy ñëw ci gannaaw saxaaba yi lu dul saxaaba yi ñoo la gën loolu boo ci amee sikk sàkk rek xamal ni sa ngëm yàlla des na képp ku ñëw ginnaaw saxaaba yi ak koo mën a doon saxaaba yi ñoo la gën loolu moom ittafaqa alayhi ahlul xalli wal aqdi wal ulama al muxassisin al muxaqiqin borom xam-xam yu wér yi nga xam ni ñoom kat nangul nañ leen seen ak xam lislaam dëppoo nañ ci ni ku ñëw ginnaaw saxaaba yi saxaaba ya la ñoo la gën bal sax nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxam rek dafa doyoon kenn ku ñëw ci ginnaaw saxaaba yi bu dépassé woon lu tolloog montagne Uhud ci or benn saxaaba sarxe lu tolloog ngëbëb dugub wala genn wàllu ngëbëb dugub la saxaaba joxe mooy gën a foor fa yàlla xam nga ni koo xam ne lam joxe moo gën a foor li nga joxe xam nga ni moo la gën loolu kon mbir la yoo xam ni ñañ ci war a bàyyi xel radiyallahu ankum wa ardaahum kuñ ko waxal keneen ku dut ñoom ñoo ko yeyoo radiyallahu ankum kuñ ko waxal ku dut ñoom sa bés wérut waaye bii moom wér na loolu faw mu nekk pas-pas ñu jëmbat ko ci suñuy xol bëgg saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waxtaane ay góor ak ay jigéen yoo xam ni dafay jëmbat ngëm yàlla ci suñu xol dafay jëmbat amu fit ci sunuy xol dafay jëmbat bëgg yàlla ci sunuy xol lépp loo xam ni moo nekk sunu kanam loola yàlla moo ñu koy gënal akub yonenteem wala daarul axiratu xayrun lilladina taqaw alaxira day moo gën fuuf àddina ci ñi nga xam ne ñoo ñi ragal yàlla ndax ñoom xam nañ ko te loola bokk na ci li la koy may mooy xam saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ngeen fàttalikoo ci sunu bind bee weesu ñoo ngi woon ak kenn ci gaa yooyu muy tulayxata ah al asadi wala tulayxata ibni xuwaylid muy waaju baax jooju jàmbaar jooju nga xam ne bu ngeen fàttalikoo ah am na ay njuumte yu ko daloon ci dundam loola nag bu fekkee gaawu ñoo fàtte mbokk yi ci nga yëg ni nit mën naa tardé lool waaye mujj avancé gis nga soo demee ci saxiix muslim am na benn xadis yonent bi def ni man bati a bihi amalu lam yulxaq bihi nasabu képp koo xam ni saw askan ah say jëfa la tax a tardé saw askan du la tax a dabe allahu akbar mbokk yi boobu xadis nañu ko nafaraat càmbaraat ko bu baax xool ko li ñuy dund ku say jëf tax a tardé saw askan du la tax a dabe loolu mooy lan mooy nit ki askan wi mu bokk ni mu fooreek ni mu baaxee ba tax ñu yaakaar ni moom lu mu yaafus yaafus yaafus ëllëg ci ñu kawe ña lay bokk déedéet man batu abi amalu ku say jëf tardé tardeel lam yulxaq bihi nasabu saw askan du la tax a yegg kon aw askan mënta yeggale nit ki fu ay jëfam waroon a yegg kon loolu la muy wane mooy ah ku say numtrati ku saw askan tamit tax a tardé say jëf mën na laa yeggale fa nga war a yegg loolu ma mooy mafhumul muxaalafa bi tulayxa gisoon ngeen ko ak valeur yi mu amoon ak nga xam ni boo ko déggee rek waxoon naa leen ci saxaaba yi am na ay nit yoo xam ni ku mel ni tulayxata bni xuwaylid ku mel ni almiqdaad ibni maadi kariba ah ku mel ni alqaqaa ibni amrin ku mel ni saxaaba yu bari yoo xam ni almiqdaad ibni al aswad ah ñii ay jàmbaar lañ woon yoo xam ni mbokk yi kenn koo ci taxawal rek daf daan dalal xel ci xare ah xam ngeen ni aboubacarin siddiq moo doon wax ni su ma déggee fasu qaqaa ibni amrin ngexal rek sama xel day dal allahu akbar waxuma mu ñëw de su ma déggee aw fasam ngexal rek mu wér ma ni qaqaa ibni amrin mi ngi ci daje bi rek sama xel day dal wa kadalika kaana omar wa kadalika kaana saadu ibni abi waqaasin xaasatan fi gazwil qaadisa qaadisiya kon kii di tulayxata ibni xuwaylid gisoon ngeen ko ak ni mu jàmbaaree waaye borom bi natt ko moo tax ma wax leen ni leen nit lu mu màgg-màgg mbokk yi bu mu naagu fi ne amu ci kenn ci ñun koo xam ne mën ngaa garanti ci lan ngay dee wallahi nu axsanu danna bi rabbina comme yonent bi nee na yàlla nee na ana inda danni abdi amul kenn ci ñun ku mu wóor ci ne li nga nekk nii ci ngay faatu kenn la wóorut ñun nag léeg-léeg seytaane daf ñuy manee boor daf ñuy poosu te duñ ko yëg ni mu ñuy poosoo mooy amaana yàlla baaxee na la def nga ay quelques années ci sunna sa xel commencé dal nga naa ah man kay alhamdulilah yëf yi moom nangam déedéet bul naagu bul naagu mukk xatta walaw kunta fi aaxiri ramaq bul naagu boo demoon ba nekk ci xar-xari ndee mu wóor la ni fi ne yaa ngi waaj a jeexal bu mu tax nga naagu li ko waral mooy mbokk yi jàdd dafa yomb ñii ay saxaaba lañu woon mbokk yi mbokk yi ñii gis nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbonteeg lii fitnaa laate tey di génn nit ci diineem wallahi mel woon nii mu mel tey ci jamono jooja facteurs yi doon tax a baax dafa bari facteurs yi tax a bon dafa néew te teewul gaa yi am ñuy jàdd tey facteurs yi tax a baax dafa néew yi tax a bon dafa bari moo tax it ñiy jàdd danañ bari mbokk yi yàlla na yàlla musal ci sa xal bu kenn wóolu boppam borom xam-xam baag diw rëy na ci samay bët ak diw ak lim defal sunna ñaata at liggéeyal na ko daawa beeg yooyu yëpp mbokk yi du ay wax xam nga luy wax ci mooy ngay ñaan yàlla mu saxal la gis nga yàlla bi mu wàccee aaya ji yonent bi ni ko fastaqim kama umirt tegal sa tànk ci njub comme ni ma la ko digalee yonent bi dafa tiit ba bi jaaw biñ ko laajee yoon sa salam lan moo la tax a bee jaaw dañu sayyabat nii huudun wa axawaatuha suuratu huud ak i mbokkam ñoo ma tax a bee jaaw suuratu huud nag du maanaa suura bi yépp waaye fastaqim kama umirta mi ngi suuratu mooy fastaqim na nga jub xocc teg sa tànk fi ma la ko tegloo kama umirta comme ni ma la ko digalee yonent mu ne baat boobu moo ko tiital ba mu bejjaaw nga xam ngeen ni ko xam yonent sa salam bi muy faatu du woon mag 63 ans xam ngeen du mag ah 63 ans yi tey sax du mag te xam ngeen ni jamono jooja la 63 ans gënoon a ñàkk a nekk mag kon bu kenn naagu tulayxa borom bi subhanahu wa taala natt ko mu murtad génn ci lislaam waaye nag yàlla mi nga xamante ni yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaafu ani sayiat borom bi subhanahu wa taala nangul ko jéggal ko insha allah boole ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi dar yonent bi di liggéeyal yonent bi ba gis ngeen bi yonent bi faatoo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa amoon gàcce lool ba nanguwul a ñëw ci abubakrin aj si na màkka ba ñibbi te gàcce may na ko mu gisee ak abubakar ndax li mu def dafa rëy dafa tubbi yemul ca loola muy woote wa ak nubuwa di wax ni moom ab yonant la loolu lépp defe naa gisoon ngeen ko muy gaaf gu rëy rëy waaye sunu boroom teg ko nii ci tawfiqam subhanahu wa taala dimbali ko mu tuub te xam ngeen ne wa man taaba taaba allahu alayhi yonent yàlla mu ni al islaamu yajubbu maa qabla wa tawbatu tajubbu maa qablaha l'islaam moom saa bu ñëwee la ko jiitu woon ci kéefar fomp na ko tuub saa bu ñëwee la ko jiitu woon ci bàkkaar fomp na ko kon nit ku tuub day rafet njort ci yàlla subhanahu wa taala tey nag ñu continuer ak waa jooju nga xam ne rajulun yuaddu bi alfi faris rajulun yuaddu bi alfi faris waxoon naa leen am na benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax ni muhammad ibni saadin am na téere bu mu taalif bu am solo ci góori yàlla yu baax yi tuddee ko at-tabaqaat muhammad ibni saadin nee na kaana tulayxatu yuaddu bi alfi farisin li shajaatihi wa shiddatihi tulayxa ak njàmbaarteem dëeru fitam allahu akbar mbokk yi yii soo koy dégg bokk na ci effet yi muy def ci sa xol mooy day tax nga xam ni doomu aadama amul benn obstacle bu war a nekk ci kanamam digganteem ak borom sonta la mu koy tiit wala mu koy ragal ñoom amuñ woon lu leen doon tiital laa yaxaafuuna tahdida ahadin illa tahdida rabbil alamin amul benn menace nag buy jóge ak fu mu mën a jóge ci àddina bi bu ñuy tiit lu dul menace bu bàyyi koo ci yàlla subhanahu wa taala tey nga tàbbi sawara tey ma alag la tey ma dugal a jaxim tey ma dugal a saqar tey ma dugal a jahannam loolu moo leen doon tiitloo waaye du woon menace nit defe naa kulluna yatadakkaru qissata mughirata ibn shu'ba subhanallah ca qaadisiya nga xam ne tey lu ëpp ci li may waxtaanee ca qaadisiya lay doon xoolal soldaar yoo xam ni ëpp nañ dix mille personnes ñu yabal la yow pour nga dem jëli ay information muy ñëw fekk ñu lal ko ay moquette ma ngay fëgg moquette yi di bënn ka dem ñu koy laaj lu tax nga def lii mu ne bu leen ma fontoo man soxlawu ma leen di ñëw fi yéen a ma woolu su ngeen su ngeen ma waxee wàccal sa moquette man dem sama yoon mu wóor la ni kii mën nañ ko fee rey léegi léegi lu ko buur bi wax yow am nga sens law laa anna rusula la tuqtal lu tuqtal la qataltu ñoom dañoo respecté woon bokk na ci accords yi ñu daan signant ci wàllu guerre mooy bu ñu yabalee ndaw doo ko rey loolu nag li tax ma di ko leeral mooy amana kenn ci yéen mën naa wax ni waaw lu mel noonu lu tax yéefar yi profité wu ñu rey ko rek benn yoon déedéet dafa bokk ci yi nga xam dañ ko respectante woon mooy même bu benn waay yonent bu yabaloon ab yéefar mu ñëw ci Madina nga xam ni ndaw la kenn du ko rey su yonent bi yabalee wala Aboubacar wala Omar bokk na ci yi ñu doon siñeente mooy kenn du ko rey looloo waral nag mu am dëgg la sax loolu taxul mu am fit woowu waaye yooya nag moo taxoon reyuñu ko. tulayxa ibni xuwaylid keroog ca qaadisiya fekkee na ko xeex bu ñuy wax nahaawund tamit fekkee na ko qaadisiya ak nahaawund ak jalawlaak ak xeex yu bari bu ñuy topp xeetu saxaaba yi ku ko fàttaliku lu bari dégg nga tur yu benn bu ci nekk nettali woon naa as lëf ci xeex yooyu ak métti goo xamante ni métti woon na ko ci diggante jullit ñi ak yéefar yi keroog Nahaawand ak wala keroog Qaadisiya Omar ibn al-Khattab dafa bind benn lettre Saad ibn Abi Waqqas ni ko an shaawir Tulayhata fi amri al-harbi wala tuwallihi shay'a Saad yaa jiite xeex bi décision booy jël na nga woo Tulayha laaj ko xalaat waaye bul ko fal bul ko fal benn bos waxoon naa leen ci dars bi passé. bokk na ci li ñuy yaree ku def yenn bàkkaar yi yu musiba yi surtout luy wane da nga bëgg pouvoir da nga bëgg fal mooy la nga bëggoon même bu tuubee dañ la koy xañ benn waay boo xamante ni dafa dafa bëggoon nangam ba tax mu jàdd yoon def bàkkaar nangam jooju mu bëgg dañ ko cay pine bokkuloon ci doxalinu Aboubacar ba doxalinu Omar ñoom yenn yëf yëfaan yu ëpp yi nga dëgg la nit dana def bàkkaar bu rëy nag après ñu fal ko lu ko parce que bàkkaar bu jotewut ak fal dara te tuub na yàlla nangul la ko waaye lu mel ni day wane ni yow da nga bëgg na xam ngeen ku dem bay woote woog yonent wax dëgg yàlla bëgg nga ko la topp nag looloo taxoon nag ñu pinee ko loolu donte nag loolu yàqul ci tuubam dara ahlu siyari kulluhum ibni kathirihim wa zahabihim wa ibni saadihim ñoom ñépp dëppoo nañ ci ni tuub na tuub gu sell gu baax gu wóor dellu siwaat ci lislaam réccu lam doon def teyit nag bu leen fàtte ne inna alxasanaati yuzhibna alsayiat dalika dikra lidhakirin mu ni ko moom de ku xam xeex la nga xam ngeen ni ku- benn nit bu génn ci lislaam di woote wak yonent organiser ay soldaar mën a jàmmarloog soldaar yi pouvoiru lislaam xam ngeen ni kooku du ko ndaw mu ne ko nag kon ku xam xeex la ku xam xare la ndax xare yi dox digganteem ak jullit ñi métti na lool ku fekkee dars bii passé defe naa xam nga ci as lëf keroog naxaawandi nag def na fa jarale rëy rëy bal naxaawandi sax fa la shahidee nag bi muy faatu bul fàtte dafa am shahada bi muy faatu dafa am shahada al imaamu Dhahabi boo delloo ci seeru alami nubala mi ngi nettali ni keroog naxaawandi day def na fa ginnaaw boo xam ne dafa imaam Dhahabi dafa indi dundam ci siyar bi mu andee dundam ba noppi wax ja njaaxum yi mu def ak woote gi mu doon woote woo yonent ak fa mu jaar ba tuubaat waaye mu ni keroog nahaawunde def dafa jaloora yu rëy rëy rëy rëy rëy yoo xam ne yu ñuy coow la bal ci xare boobu ca la faatu yéen a ngi fàttaliku nahaawun ca Nuaym ibn Muqrin ak Nu'man ibn Muqrin bañ leen falee defe naa ñuy topp dar si fàttaliku ci xamatuma kan ci saxaaba yi maa ngi ko doon nettali nga xamante ni xeex la boo xam ne dem nañ ba deret ji fas yi dañ ci doon xuus xeex boobu ma nettali woon ca la waa ji faatoo nga xam ni Nuaym ibn Muqrin ak Nu'man ibn Muqrin di ñaari doomi baay ñoom ñaar kenn ku nekk général nga woon bi kenn ki faatoo ba daanaka kenn xàmmeewu ko ndax deret ji mel ni ndox mu mu lab ci mu lab ci biiram ndox ci xare boobu ma lay wax ak na mu mettee woon donte jullit ñaa ca gañe ci la Tulayhata faatoo woon faatu goo xam dafa ànd ak shahada rahimahullah wa radiyallahu anhu wa arda wa an jamii sahaba keroog xaadisiya nag am na bis bu ñu tuddee armaas xam ngeen xaadisiya ay bis la xaadisiya nekkul woon xeex bu ñu ñëw rek maanaam comme exemple ñu ni julli ñi daje nañ bisab samedi xeex nañ xare ba jeex xaadisiya demeewut noonu xaadisiya matoon na ñeenti fan ñeenti fan songante yi laax de cawante jaasi yi ñeenti fan mat na ko waaye li gën a kéemtaane li gën a kéemtaane ci xaadisiya mooy gis nga jullit ñi bi ñu ñëwee campé rustum nga xam ni moo jiite xeexu kisra bi gis nga li yonent bi naa alxarbu xudaa xeex naxante la yëfër yi dañoo saay saaya saay saay ba foo ko takk dañoo bëggoon a xam nga léeg-léeg bokk na ci xeex yi ngeen di gis foyu caaxaan yi donte waruma ci woon jël misaal maanaam léeg-léeg boo bëggee gañe ki sa adversaire da nga koy merloo da nga koy merloo du gis ngeen yooyu stratégie bu fi yàgg la maanaam rustum ci boppam généralu guerre la boo xam ne dafa mën li muy def te dafa saay-saay xaadisiya du palaasu jullit ñi jullit ñi ñoo déplacé wu ñëw xaadisiya du palaasu yéefar yi waaye yéefar yi la gën a jege te yéefar yi am nañ temps bi ah muy préparation boo xam ne bu mat la 4 mois 4 mois rustum toog na ko lànk bañ a songoo ba gaay naa ko da ngaa ragal fekk ragalul woon de gis nga ci stratégie guerre rustum dafa xam ni jullit ñi fañ jóge sori na. te xam nga ni faw ñu lekk faw ñu naan faw ñuy feebar faw ñu am ay soxla maanaam faw ñu bàyyi leen ba genn wàll li ñu yoroon ñu lekk ko genn wàll liñ ay seeni soxla nangam ñenn ñi feebar ci ñoom su ko defee loolu day waral gën a wàññi seen doole ñaareel mooy comme julli ñi dañoo xiif dee ñu bañ leen koo may ñoom dafa ñu de dafa ñu de xamoon nañ ni julli ñi dañoo xiif dee waaye duñ leen ko may waaye Saad am na ci benn riwaaya Ibn Kathir mi ngi koy nettali nee na dem na ba rey nañ muus lekk ko ndax xiif benn moment boo xam ne muus sax ay muus rey nañ leen lekk ko ndax dem nañ ba amatul lu lekk bu ñu ko lekkul dañuy faatu waaye nag ñu ngi taxaw rek di xaar te xam ngeen ne Saad góor gu dëgër la woon Saad ibn Abi Waqaas moom rek la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas a wax xam nga saxaaba yi ñoo doon wax yonent bi jotee naa la sama baay ak sama yaay saxaaba yi ñooy wax yonent bi yow jaral nga ma ñàkk baay ak yaay waxal loo wax noonu la Saad rek la yonent bi mas a wax yow jotee naa la sama baay ak sama yaay kese ci saxaaba yi. moom rek la ko yonent bi waxoon saadu na bi waqaas moom la yonent yàlla bi waxoon ni ko yow loo ñaan yàlla nangu ko moo tax Omar ibnul Xattaab naan ko yow da ngay boo fi nekkee dof dof lu defee ne yaay ndijaay xam ne ndijaay la ci yonent bi mu ne ko boo fi dof dof loo jàppee ne yaay ndijaay yonent ba tax ngay tiitaru boo fi jaamul yàlla da ngay dee tàbbi sawara dégg nga li ma la wax nii laa wax xam nga Omar yu mel noonu da koy parce que tamit nag ndijaay laa ci yonent bi pouvoir bu rëy la yonent bi nee na la jotee naa la sama baay ak sama yaay pouvoir bu rëy la moo njëkk a sànni fett wala xeer jam tuur deret ci lislaam diggante jullit ñeeg yéefar yi ca Makka ak yeneen i ngëneel yonent bi ne woon ko yow ñaanal yàlla nangu na sa ñaan moo tax nga dégg Sénégal naan ñaanal ma ñaanuk ñaanuk xaas du xaas sénégalais gis nga sénégalais ku ko gën a tayal amul sénégalais baat yëpp da koy abrégé ñaanuk saad ba muy cosaan ñaan ak saad lañ ne dañaan ñaan ak saad ibn abi waqaas loolu mooy lan saad dafay nekkati ba ba kenn di la ñaanal ñaanuk saad bu la ñaanalee tus la du nangu ñaanuk saad ibn abi waqaas mooy saad bu ñaanee mu nangu bu leen fàtte loolu am na ñu bari ci saxaaba yi noonu lañ meloon ba ci taabi'un yi gis nga mbokk yi nit ki bu góorgóorloo digganteem ak boromam wallahi yàlla mën na koo defal mu ne gis nga Saïd ibni Jubayr Saïd ibni Jubayr jaamu ko te yàlla bu mag ba mu nga xam ne ku ko rayoon kan moo rey Saïd ibni Jubayr ah gaa yi daa mel ni ñoom. yéen xanaa da ngeen lekk bopp jën xajaaj ibnu yusuf xajaaj moo ko rey gis nga bam ñaanalee xajaaj ni ko xajaaj yow bis ni ki tey yàlla boo amati kattan laal benn jullit keroog la xajaaj yàqule gis nga saïd ibnu jubayrin dafa amoon ginaar ci biir këram ginaar gee ko yee par fajar benn bis ginaar gi sabut xajaaj saïd bi dënti bi saïd bi dëntee mu yow mu ni ginaar gi yow yàlla na nga dee da ko wax rek ginaar gi faatu yaayam woo ko ni ko bu ma déggatee nga ñaan ñaan gu bon rek nga toskare yow waxoon naa la bàyyil ñaan lu bon ndax yow loo ñaan yàlla da koy nangu loolu bu kooku du saxaaba de ki may wax du saxaaba taabi ay la loolu moo lay wan ni ko nit ki saa bu góorgóorloo digganteem ak boroomam rawatina di xool li muy lekk mu lew yàlla mën na ko dimbali nangu ñaan noonu la Saad meloon Saad nabi Waqaas moo jiite woon guerre bi yonent bi saa sallam ni ko deel dimbali koo ki nga xamante ni moom mooy Tulayha waaye bul ko fal am na benn bis bu ñuy wax bisub armaas wax naa ne ñeenti bis la préparation bi li muy gàtt gàtt dañuy xëy di xeex fajar ba timis jot jullit ñi suul seeni néew préparer seeni affaire comme lëndëm na te xam ngeen ni guddi gi am na am na yoo xam dem nañ ba ginnaaw timis sax di xeex ñu arrêté xëyaat suba nekkaat ci ba timis ba ca ñeenteelu fan ba ci la yàlla doog a doog a jullit ñi gañ a yéefariñ moo tax it xeex la bu metti mbokk yi xeex la bu metti gis nga jullit ñi 2500 personnes faatu nañ ci keroog 2500 personnes faatu nañ ci waaye nag min min min min al jaanib al aaxar 10000 personnes et quelques faatu nañ ci yéefar yi yaakaar naa 10000 et quelques moo ëpp 2500 et quelques kon li jullit ñi rey ci yéefar yi kenn xamul nu mu toll waaye saxaaba yu baree baree bari ci lañ amee shahada ci bis boobu mi bisu armaas nga xamante ni bis la bu metti lool parce que xam ngeen ni bokk na ci stratégie bi waa Perse defoon mooy dañoo àndaale woon ay ñay bokk na ci li gën a mettil Qaadisiya mooy ñay yi xam nga lu ko waral mooy arab yi xeex ak fas lañ xamoon te fas daa ragal ñay loolu mooy problème bi maanaam xeex la diggante julli ay fas ak i fas subhanallah gars yi ñoo saay-saay dañoo bàyyi ba julli ñu songoo ak yéeféer yi ñu xam ni léegi julli ñaa ngi leen di bëgg a dominer rek rustum daal di digal ñu yoroon ñay yi am na ci ay téere siyar boo demee day wax juróom-ñetti ñay la waaye ibni kathir ci albidaaya wa nihaaya nee na fanweeri ñay la woon ak ñett mu ni fanweeri ñay 33 ñay yoo xam ne am na ci benn ponkalu ñay woo xam ne gis ko rek dalay tax a tiit bu tudd saabuur nee na moo leen jiitoon ndax ni mu réyee ñay saabuur moo ma woon ñay woo boobu moo ma woon ñay woowu ñay wu rëy woo xam ni xool ko rek dafa raglu moo jiitu woon ñay te des topp ci ginnaawam léegi nag loo jàmbaare jàmbaare jàmbaare bu rëpputalee sa fas rek fas yi bu ñëwee ba jub yéefari rek day maam ak yow nga daal lu ko waral parce que fas yi dañoo ragal ñay yi gis nga de loolu tax na jullit ñi sonn nañ keroog coono boo xam ni am na am na benn benn benn xabila muy giir bu ñuy tuddee kind wala kinda boobu bokk na ci giir yi nga xamante ni ñoom ñoo doon défendre keroog parce que jàpp nañu ñoom ñoo gën a miin waaye bi ñu essayé jàllut fekk saad mi ngi ca kaw montagne ba ndax booba dafa amoon ay taab xam ngeen qaadisiya saad moo ko jiite waaye bokku ca bokku ca lu ko waral dafa dem ba xeex bi jub si mu am ay taab yu méttee métti taab yoo xam ne toog sax mënu ko yu metti lool jullit ñi daal di koy yéegal ci benn montagne bu kawe mu sibbe tiim li nga xamante ni moom mooy xare bi su ko defee di leen digal daf leen di wax ni su ngeen déggee ma ni allahu akbar ku nekk na préparé wu su dolliwaatee ñaareel bi yoon ni allahu akbar kenn ku ci nekk na nga visé fa nga jëm su dolliwaatee ñetteel bi yoon rek mooy jeex na ñoom noonu lañ doon xeexee loolu benn façon la way laa ñu def li ñu tuddee face à face kaa ñu jàkkaarloo ku ma ñeme benn yéefare yi génn fële mu ne ku ma ñeme wala benn jullit génn fële mu ne ku ma ñeme keroog loolu tamit sax def nañ ko ci xaadisee tamit nag avant yuuxu googu ah qaqaa ibni amrin moo yegg si muy jàmbaar jooju may wax yéefar yi génne benn mu kutt ko sànni fële ñu génne beneen mu kuttaat sànni fële ba muy juróomi nit yéefar yi xam ni lii moom doxut buñ ko continuer sun te xam nga génne bul yaakaar ne dañuy génne ab ab waya waya ab sàmba ñuq nii de déedéet dañuy seet ku ponkal ci seen biir ponkal yi parce que xam nga ni fi xaaxaa génnee ku tol ni xaaxaa fa war a génn loolu amoon badar loolu moo amoon badar keroog bi Hamza génnee Ali génn ak ñeneen gi ñu toll ni ñoom lañ génn ca yéefar ya bi gars yi xamee ni général yaa ngi dem ci lañ arrêté loolu daal di nag tempo li wala fi tuddee tempo songante bi loolu amee ci bis boobu jullit ñi jaaxle lool xa comme Saadu Omar digaloon na ko ni ko dee ko dee ko del woo Tulayxa di diisoog moom Saad daal di woo Tulayxa ni ko Tulayxa fi ne loo ci xam ñun ñu ngi waaj a daanu de te xoolal wallahi gis nga Omar ko amoon basira la ak liñ koy mere mere donte tuub na ak njaaxum gi mu def li mu rëy rëy rëy amal na jariñ keroog bu ñëwut woon ginnaaw ndimbalu suñu borom mën naa métti de moo lay wan ni gis nga nit mën naa def benn bàkkaar nga xeebee ko ko fekk amal na njariñ lislaam loo xam ni wallahi yàlla gërëm na ko ci toujours wala azalu ukarrir bu kenn yàlla àtteel yàlla jaam classement beeg sa way classe yi ñuy def fii dem yooyu bàyyi leen koog yàlla li baax daal nañ ko jàngale leer nañ ko jàngale ko juum ñu ne yaa juum bu sa ba passé passé na jaam ñi yàlla moo leen di àtte alaysa allahu bi ahkamil hakimin bi mu ne ko loo ci xam mu ne ko jox nga ma ndigal mu ne ko jox naa la ndigal mu ne ko demal bi bi nu mu tuddati Tulayxa ñëwee xam nga mi ngi bokk ci banu asad te banu asad bokk nañ ci giir yi gën a doy waar ci mën a xeex Tulayxa mu ne eh yaa banu asad taalaw kaay leen wuy si ma gaa yi ñëw bi ñu ñëwee mu ni leen yéen de tey yàlla nar na leen a defal ndam ñu ne ko ndamal lan mu ni sunu njiit bi mu jaaxlee kenn ci banu asad la woo te bu wooyee kenn ci banu asad woo na waa asad ñépp te njiit li su xamoon lii muy faj lu am na keneen ku ko mën a faj ku dul yéen du leen woo gis nga de maanaam ñoom dañu mënoon wax ba nga xam ni xam nga léeg-léeg nit mën nga ko wax loo xamee su waay bu bu bu narul woon sax dana def bu narul woon sax dana def kaanu xutaba ay nit yu yu mënoon a jàllale wax la wax lañu woon xam ngeen ni bu Omar bu bu bu Saad xamoon ni am na keneen ku man lii ku dut yéen dina ko def yéen yéen ay ñan mu ni leen yéen ay ñan ñu ni ko ñun ñooy banu asad mu ni leen asad lu muy tekki mu ni gaynde mu ni ifaalu fi alal usud tey laa bëgg ngeen di wane sax ne sax nde gaynde gi ngeen di woote wa dëgg la wala déet def leen jëfi gaynde tey nag ba nit ñi xam ni tur wiñ leen di wooyee mérito wu ngeen ko songu leen songu gaynde te wane wane doole yi gaynde bu ma gis kenn ku daw dellu gannaaw gaynde xamul daw di dellu gannaaw déedéet bismillah nag maay jiitu yéen topp sama gannaaw d'accord ngeen mbooloo mi yépp ni d'accord nañ benn waay bu ñuy wax almaarur ibni suwayd moom bekk fekkee na xeex boobu nee na gis nga banu asad bi ñu songee similaak saala nan lan def ñay yi ba tëral leen ci boppam daf noo jaaxal noonu bokk na ci stratégie yi ñu doon def subhanallah moo tax gis nga booy jàng siira maanaam da ngay xam ni jullit ñi dañoo mas a avancé tey rek la nit ñi yaafus benn waaye dañ ko jox fett ni ko taxawal fële yow moom yàlla def na ko jub loxo nga yow moom ñay yi lañ bëgg seen bët yëpp fëqal ñu leen kese loolu lañ la sant bu laal bu rey kenn bët yi rek maanaam koo xamante ni tey fi mu nekk nii bu daan doon mbir mi ay meetar bu dàkkee buy dóor muy dal ak lu mu sew sew sew la muy sànni ndax dafa am ñoo xam ne dañuy tudde arrumaat bu ngeen fàttali ko keroog Uhud ñu mel noonu la yonent bi yëkkati woon teg leen ca kaw montagne ba ñoom la ñuy tuddee arrumaat dañuy tànn gaa yoo xamante ni ñoom seen loxo du mooy am ñoo xam ne ñoom fële lañ taxaw rek ñoom di fëq bët ñay moom boo xësee fëq bët ba fu fu muy xamati fu muy jaar moom day këmbax këmbaxi rek benn ngoo ñaareel bi mooy comme ñay yi ñoom ni ñu doon defee ñay yi xam ngeen ñay pour nit war ko dafa am benn genre kees gu ñuy teg ci kawam comme ni ñuy tuddee xaw daj xaw daj mooy gëléem gis nga bu ngeen seetaanee documentaire yi naar yi voyage am na genre lu mel ni néeg lu ñuy teg ci kaw gëléem gi loolu mooy tuddee xaw daj comme am néeg la ñay day am lu mel noonu waaye genre kees lay doon léegi ñoom kees gi dañ koy jël takk ko ci ron ñay wi gaa yi fexe ba dugg ci ron tànki ñay yi di dagg buum yi nga xam moo yeewoon kees yi xam nga buum gi yeewoon kees yi boo ko xasee dagg rek kees gi këpp simila ak saala ay waxtu yu gàtt yu gàtt banu asad fexe nañ ba daanal li nga xamante ni moom la gaa yi àndaloon ci ay ñay bi loolu amee ñuy xeex benn waay daal di génn ci ñoom waa joo xamante ni kéemaanu yàlla la woon ci xeex far tombe tulayxa di yegg si tulayxa jàkkaarloog moom amuli minute rek tulayxa yóbbu ko àlaaxira léegi nag ponkal mi génn nag muy jaali noos nga xamante ni ñoom ñoom ñooy général yi nag nga xamante ni maanaam bu ñu la ñii ñooy général yi mooy ñi nga xam ne ñooy yaakaar yi soldaar si bi waa ji génnee moog tulayxa ndax wax dëgg yàlla moom it nag ponkal la comme tulayxa nag maanaam du woon waa joo xam ab waya wayal nii rek moog tulayxa moog tulayxa mbir mi metti lool pënd bi wuri ba saxaaba yi tiit taabiun yi ànd ak ñoom tiit amul lu ñuy tar rek lu dëgg de tar ndeke Xaalid dafa dóor jaasi ji ci kaw mbaxana weñ bi li ko may sens bopp bi xarut mooy mbaxana mbaxana weñ la waaye li muy nekk nekk mbaxana weñ mbaxana mi nee na tasaar xam nga seen jaasi yooyu nag bokkut ak suñ jaasi la mbax yi nga xamante ni sumu waay booy lonk di dëngal muy damm déedéet bi ko Xaalid bi bi ko bi ko Tulayha dóoree ci bopp bi ba gaa yi dégg tar ji rek ci lañ seen mu daanu heureusement am na sens gaa yi gaaw for ko waaye mbaxana mi mu soloon moo yàq looloo ko may sens ne kon moom keroog la fay jaaree dem àllaaxira moo tax borom xam-xame dañuy wax ni bisab armaas ci xaadisiya day bisab waa banu asad la bisab waa banu asad la ndax ñoom kat wane nañ fa kéemaan goo xam ni mboolem saxaaba ya ak taabiun yi nga xamante ni ñoo ko fekkee woon dëgg-dëgg moo tax xaalid kële saad dafa toogam yàgg mu ne lillahi darru asad lillahi darru asad loolu waxin la woo xam ne bu ko arab waxee cay sama gaaw sama waa ji daal moo ma jaaxal bu ko olof waxee loolu loolu lay tekki lillaahi darru asad mooy cay sama gaa yi sama gaa yi daal jaaxal nañ ma rek loolu la saad doon wax radiallahu anhu wa arda ànd ak loolu nag yàlla subhana taala xam ngeen defal na jullit ñi ay mbir ay kéemaan ci xare bi bokk na ci kéemtaan yéen ca mën a tudd mooy buur bi ci boppam muy rustum buur bi mooy qaysar rustum mooy général bi rustum dafa tëdd ba guddi fekk ñuy waajal qaadisiye mu tëdd ba guddi mu gént gis benn malaaka ba wàcce ci asamaan rustum rustum moo ko nettali moom yéefar bi ne dafa gént benn malaaka ba wàcc ci asamaan ñëw di roccat suñu jaasi yi nangu suñu jaasi yi yëpp teg ko ci loxol muhammad muhammad teg ko ci loxol omar affaire bi jaaxal ko bi dafa yeewu rek woo firikati gént yi xam nga ñoom it yéen it ni ngeen amee firikati gént ñoom it noonu la ñu amee firikati gént ah su ko defee mu woo firikati gént yi ni leen lii ma gis day gis naa malaaka mu nangu suñu jaasi yépp jox ko Muhammad Muhammad te Omar la ko jox te Omar la ñuy xeexal nag loolu bokk na ci fi yàlla commencé dugal tiitaange seen xol mooy tolloog wa qadafa fi qulubihim ar-ru'ba gis nga de loolu benn ñaareel bi mooy buur bi dafa dafa dafa toog ba mu yàgg mu ni xam nga gars yi daanañ def loolu yabal leen ma dama bëgg kenn ci yéen na ñëw wala ñaar ma waxtaan ak ñoom ñu yabal ay gars yi ñu dem rustum nga xam ni dafa réew a réew xam nga yéefar day réew xam nga yéefaroon day réew parce que amul ko ko yar waaye yéen seen dàlli ñax yi yéeg waaye yéen seen tubay yu cëkk yi yéeg maam di leen saboté saboté waaye julli ñu nag ñu amoon fulla lañ rustum ni leen waa lu ngeen fay wut si ñu ne xanaa sa nguur gi ci boppam lañ bëgg a nangu génne jaam ñi ci jaamu ab jaam yóbbu leen ci jaamu suñu borom waaye mun leen a ñëw ma jox leen alal rek ngeen dem toog ñu ne ko ñun alal daf noo yëtteelut àllaaxira lañ jëm ñun te danoo yàkkamti li ñuy def mu ni waaw kan moo kan kan mooy sang kan mooy sang ci yéen kan moo gën a nekk kilifa ci yéen fekk lu saay-saay la nar a def waaye billaay caay-caay léeg-léeg mu jural borom musiba kan mooy sang bi ci yéen Asim ibn Amrin jóg ni ko may sang bi fekk wax ko woon pour tiitaru waaye da ko doon wax pour ñeme ngir luñ koy def na ko def ci kawam kan mooy sang bi mu ne man maay sang bi mu woo benn bëkk néegam ni ko demal jël benn paan nga duyal ma ko suuf ba mu fees dell dell ba diis gann nga indil ma ko mu benn waay bi waa ji dem tibb ca suuf sa ba mu fees dell mu ñëw mu ne ko ana sang bi mu ne ko man maay sang bi mu ne yéen leen ko ko paan boo xam ne sumu waay ba ko aasib yéenoo sax mënu koo yóbbu ndax diisaay muy daal di reetaan ni ko ah yaay sang bi yóbbul suuf soosu ma may leen comme yaay sang bi daal di reetaan nan xam naa da ngaa yaakaaroon ak pal laay joxe wala neexal jëlal asim déggal la ko non saxaaba ya da ngay xoolam yàgg da ngay da ngay li gaay nan ñii ndax ay nit lañ loolu ngay laaj asim kafut réewut yenneekuwut néewut diis na mu ne ko jëlal suuf si nga yóbbul ma ko amirul muminin nga joxal ma ko ko asim génn mel dégg ndigal a bëgg a dee dem yoonam moom it bi mu génnee nga defeen da koy tuur mu jël affaire ba defar ko ba mu jekk war aw fasam départ allahu akbar ndek bi muy dem romb na kenn ci gaay yi rustum yi mu ni waaw yéen kii dem lu mu yore fekk borom xam-xam bu mag la ñu ne ko moom de suuf la ko buur bi jox mu ne taw leen nangu ko lii mooy tafaawul na gàtt nga gis nga suuf si bu ko yóbboo mooy nangu nañ suñ suufu dëkk yéen da ngeen a dof kii xam na li muy def yéen a xamul li ngeen di def gars yi rëppatal seen fas yi ngir di ko dàq balaa ñoo yegg fekk suuf na moom suuf sa àgg na ci saad na bi waqaas saad bi suuf si yegg see dafa tafaawul mu ne alhamdulillah yàlla mi nu indil yàlla mi nu indil paanu suuf dina la dina nu indil dëkk lëmm seen xel na daal yii yëpp ay mbir la yoo xam ni mbokk yi boo ko seetloo ba ci biir da ngay xam ni borom bi subhanahu wa taala ku yàgg a jàppale la jullit ñi mooy walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana kon waa jii di tulayxa kéemaanu yàlla la woon ci bisub amaas ci bisub amaas muy benn bis ci bis yooyu ci xaadisiya bis boobu tulayxa dafa def jëf joo xam ni borom xam-xam yi dañuy wax ni maanaam saxaaba yi ci seen jëmmi bopp maanaam ñoom kenn ku ci nekk da ngaa mujjoon sax jàpp ni kii moom deeyam daa jotagu rek waaye dafa waroon a dee tey tey xam nga nu mu def bis boobu dane gars yi balaa ngeen a song may leen ma may leen ma tuuti maa ngi ñëw gars yi bàyyi ko mu génn moom tulay xam moom kese àndut ak kenn. léegi xam nga fi ñuy xeexee dafa am ay montagne li ma lay joxe misaal tey néeg boo xam dañ koy doog a raax utal ko bunt gis nga boo duggee nga yuuxu luy xew ah. dafay raisonné affaire bi day da nga yaakaar ni day aw di la ko jox dafa dem ba dugg ci seen daf leen a wër ndomba yéefar yi fekk xam nga gars yi xam nañ ni bu ñu xëyee suba teel lañ war a daje heure teel nangam nangam pour xare avant heure bay jot mu dem ba gannaawu leen dem ci montagne yi dàkk benn place boo xam ni comme ay punkal lañ woon te xam ngeen punkal mu yuuxu boo ko te ku ndaw koy yuuxu mu dikk ba ci place boo xam ni booy wax muy raisonné moom daal daf ko préparé jekki-jekki ba mu yàgg rek mu. yuuxu yuuxu goo xam ni yow da nga yaakaar ni kii xanaa day day xotteeku allahu akbar affaire bi riir ba ñépp di ko dégg maanaam dañuy yaakaar ni kon gaa yi yegsi nañ suñ kaw fi gaa yi përëx përëx ñii këpp seen lekk yi ñii xam nga dañuy jug dañuy daw parce que dañ naan daw daw leen julli ñaangoog fekk moom rek la benn nit la parce que li mu bëggoon mooy adversaire bi nañ ko xorñoñal wala ñu naqaral ko doog a dajeeg moom parce que loolu daa bokk ci xam nga adversaire boo ko naqaralee doo ko dajeeg moom lan mooy tax nga man nga mën koo gañe xol lay demee te ku demee xol doo am sago jazakumullahu xayran gis nga adversaire boo ko merloo bu ñëw di jàkkaarloog yow xol lay demee te buy demee xol du am sago te ku amul sago nga gañe ko loolu rek la keese xeeti nappaate yooyu dong dong dong bi mu yuuxoo def ko ñett yoon gaa yi bàyyi seen bagage yi ñii fëkk seen i jaas yi ñii nangam mu warat aw fasam yolleeku ndànk ñëw nettali ko saxaaba yi ak taabiun yi ndax booba taabiun yaa nga fa gis nga loolu may na doole jullit ñi keroog ba gaa yi ñi ngi mer-mer moo xam ne ni ñu doon demee àndul ak sago bokk na ci la waral bis boobu ñu rey ci yéeféer yi lu baree baree baree baree bari waaye nag ci bis ba ca topp keroog nag moom ci bisi qaadisiya yi tulayxata ibni xuwaylid ak miqdaad wala ab amr ibni maadi kariba amr ibni maadi kariba kooku tamit ci saxaaba yi la bokkoon miqdaad ibni al aswad amr ibni maadi kariba tulayxata ibni quwayli alqaaqa ibni amrin ñii ma lim ak ñeneen ñu dut ñoom ñoom lañ doon wax naan ñii moom kenn ku taxaw rek war ngaa tolloog junni nit saad woo leen mu ne yéen ñaar dama leen a bëgg a yónni dama leen di yónni ci soldaar yi yéefar yi parce que loolu nag dañ doon espionné loolu yàgg naa am ca jamono yoon sasam la doon am yéen a ngi fàttaliku Badar am na benn waay bu yéefar yi yabaloon ndaama lu gàtt lu sob loo xamante ni sumu waay dañ ko doon wax saytaane si ah ah umayr ibni wahbin umayr ibni wahbin gis nga umayr ibni wahbin yàlla daf ko defaloon kéemaan goo xam ne fi ne bu dugg si woon seen jàkka ji nii nii fee lay taxaw ca bunt ba rek daal ni nii loxo bi ah fii de 54 personnes ñoo fi nekk te fi mu nekk nii booy wàññi muy tolloog la mu wax maanaam kéemaan la ko yàlla defaloon goo xam ni gis nga ba mu ñëwee badar dafa ñëw badar yéeg ca kaw ca kaw montagne ma daal di tàllal loxo bi ni nii daal di wàccaat julli ñu ni ko yéefar yi ni ko loo gis mu ni ñetti téeméer yi ma gis bu amee lu ci tegi tuuti la tuuti lay doon wax na dëgg ñetti téeméer fukki fukk ak ñett lañu woon mu ne moom kay de ñett yaziduun aw yanqusuun bi qalil moom kay dolleeku mooy am waaye wàññeeku moom du ca am fekk jullit ñaa ngi nekkoon ñetti téeméer ak fukk ak ñett mujj na tuub dugg ci lislaam gis nga gis nga lu mel noonu jullit yéefari dañ ko doon def moom la yont bi yabaloon xusayfa ca ahzab ni ko demal nga vérifier ma xoolal ma lu xew gis nga ba loolu ba tey mi ngi am nag ngeen xam ko xam leen ko ba tey de gis nga sunuy noonu benn waay la ñuy jël sumu waay maquillage ko ba mu jekk ba nuroog yéen loolu moom na ngeen ko xam bu baax a baax a baax benn waay la ñuy jël ko góor maquillage ko waa monteel ko sikkim monteel ko sikkim mooy gëmoo ko sax waaye na nga ko am rek gis nga muy solu li ngay sol di wax li ngay wax di la ñooxu nag ah fekk am na lum nar waaye nag wallahu mutimmu nuura mbir moom mbir moom loolu moom defe naa li may bëgg a junj ñu bari ci ñun xam nañ ko ay nit yàgg nañ koo def feeñ parce que yàlla moo dul bàyyi neen xam nga yàlla subhanahu wa ta'ala ko xereñ la léeg-léeg mu bàyyi nag muy xuus di liggéey rek am na ci ñoo xam ne ca lañ jaaree tuub am na suma benn xarit bu ma ci nettali koo xam ne xam na ko moom moom moo nettali waajaa nettali mu ni seen jàkka ji ay at maa ngi fi ñëw déglu si xutba xutba ju ngeen fi def enregistré naa ko dañ maa yabaloon ci espion yi laa bokkoon mu ne waa ji moo ko wax mu ne waaye man lan ma doon wax ak lii ma gis bokkut moo tax maa leen di feeñal dee leen moytandiku man moom génn naa ci yooyu ba sa wicc mi ngi am de affaire yaa ngi am de loolu nag waxuma ko pour kenn ku nekk di tiit ak ràppi ràppi déedéet kenn lañ war a tiit muy suñu borom subhanahu wa taala wallahi boo nekkee ci dëgg yàlla moo lay fegal sa ayu noonu insha allah gars yi dañuy jékki-jékki préparé benn waaye mu ñëw dugg si ci sa biir tibb ay information gis nga lu yendu ci yow rek fanaani na fanaani na non benn waaye doon wax naa ma yéen doit yi di leen xool li ngeen di wax ci seen téléphone yeeg nag ma ne ko man lu may wax lu may ragal amul amul lu may ragal lu may wax ci téléphone rek dina fekk loolu lu ma nëbbut yàlla subhanahu wa ta'ala du ma ko nëbbu keneen déedéet parce que jàpp naa ni ku ñu waxoon bu yàgg ni la ñaari malaaka bañ na ko ba yàlla deux la yebal ci benn personne jàpp naa ne bu dee nit nga booy xalaat deux yooyu nga war a gën a jox considération ka ñeneen keneen keneen wala ñeneen ñaari ñooñu boo leen doo jox gëdd yàlla moo lay dimbali subhanahu wa taala léegi nag bu fekkente ni bàyyi woo xel ñaar ñii di bàyyi xel kee wallahi yàlla moo lay seetaan ak kooku bi gaa yi amee départ ñu yabal tulayxa ni ko yow demal ci soldaari rustum parce que stratégie bi gaa yi defar mooy dañu xaaj soldaar si ñaari xaaj comme ci misaal ñu ne juróom-ñetti junniy nit juróom-ñetti junniy nit ñu ne kaay leen yéen dem leen ànd ak rustum nangami junniy dem leen yéen ngeen ànd ak jaari nuus ngeen ànd ci ci ci ay soldaaram parce que loolu ay stratégie yu ñuy def pour yéen taxaw leen fële bu ngeen séenee ñu songoo rek ngeen ñëw nekk renfort Tulayha dal di génn ak Amr ibni Maadi Kariba ñu départ bi ñu yegsee ba dox lu mat ay huit kilomètres wala sept jéggi dex gi seen soldaari gaa yi bi ñu seenee soldaari gaa yi gaa yi àndoon ak Amr ibni Maadi Kariba daan ne ah ñun de kon jëriñ ñu yegg mën nañoo tourner fekk saa danañ leen fexe leen ba jàppal ma benn waay kenn laa soxla na moom lu ngeen mën a am indil ma indil leen ma kenn ci yéefar yi pour ma laaj ko ay information gis nga léeg-léeg nga jékki-jékki rek gars yi ni karab léegi nga dégg saa université ak ñoom seen gars yi dañuy jékki-jékki rek ñëw ni karab kenn rek yóbbu gis nga yooyu yooyu yàgg na fi am de fekk dañ lay xor mettital la ba yow liñ bëgg xam faw nga wax ko faw nga wax ko julli ñi ne dañ cee dëgëroon bopp dëgër bopp gu doy ni comme ñoom dañ doon bëgg am shahada ci biir xare bi kay rey ma benn yoon moo tax xeeti mettital boo leen mënti def benn information duñ la ko jox ah ab yéefar nag xam nga ni boo ko téyee su mu waay di ko maas ay fii li courant nag su mu waay léegi tey mu wax li nga bëgg kat ndax moom sawaay sawara doo nga koy xaar bi loolu amee gars yi ànd ak amri amri bi ni maa di kariba daal ni ñun nañ tourné ndax liñ doon bëgg xam xam nañ ko mooy gaa yaa ngi escale nangam nii lañ xaajee seen soldaar yi gaa yi ànd ak moom ni ko wax nga dëgg de tolay xadi ni ko déedéet waxul waxu leen dëgg de ñun liñ soxla du xam fan lañ nekk liñ soxla mooy dañ ñoo jàppaloo benn waay indi ko
gaa yi ni ñun dañuy tourné de ñun liñ bëggoon xam xam nañ ko dañuy tourné tolay xani leen bu ngeen tourné men na man kese danaa dem bu soobee yàlla moom kese xam nga soldaar yi mu jëloon ci jaari Yunus ñaa rustum ñaata la ñu quatre-vingt ah dégg nga nu mu turati juróom juróom-ñetti junni juróom-ñetti junni mooy ñaata ci seen tubaab yooyu huit mille personnes allahuma salli ala muhammad huit mille personnes mu ni damay dugg ci seen biir pour jàpp benn waay loolu loolu lan lan ngeen xalaat kii day xaru wala xel mi dafay néewut wala da dafay bëggut a yendu tey wala lan
huit mille personnes mu ne man de bu soobee yàlla bu ngeen tourné man kese danaa dem gaa yi wax wax muy danaa dem benn waaye mu ne ko gis nga yow keroog ba nga rayee okaasa ba tey da yow ay affaire xaru rek ngay def yow mbaa di àqee okaasa moo la nar a daa jàpp nii dëgg la moo rayee na okaasa waaye tuub na ñun ñu ngi ñibbi gaa yi ñibbi moom kese mu dem lii nag ñëw na ci ñaari riwaaya riwaaya bii cheikh bi indi ci téere bi mooy tulayxa dafa dugg si bàyyi ba guddi jot ba guddi jot mu lëndëm mu dugg si ci biir soldaar yi gis nga bi mu dugg see dafa yoot ndànk ba dugg ci biir soldaar yi fekk ñee ngi nelaw ñee nga jàpp seen ndàngam yàlla def mu yam ciw fas te dafa amoon feebaru fas nag xam nga nag ku nekk da nga am loo bëgg luy sa feebar am na koo xamante ni fi ne boo ko jëndaloon oto sax fas ak sareet ko ko dàqal ku nekk da nga am lu lay yëngal waa ji moom mu romb fas woo xam ni nee na ba ma dalee gis fas ba tey musuma gis fas wu reggee nii te suuree nii mu ne fas wi duma ko fi bàyyi
xoolal xoolal yow ñu ngi la indiloo nit nit kooku rek nit ak noppam rek problème la mu ni fas wi duma ko fi bàyyi léegi mu far bàyyi nit ka ka ko taxoon a jug mu bàyyi ko daal di jël fas wi comme yoroon naw fas moom it mu jël fas wi lonk ko ci dégalu fasam rëppatal aw fasam départ bi mu rëppatalee xam ngeen fas man naa ngeexal wala yooyu gaa yi yëg ni kat am na lu xew ñu seen ko sum waay ma ngay daw te juróom-ñetti junni nit ñi ngi ci ginnaawam ko maam bu ñu ko jàppoon moom mooy dañ koy daggate fajarate ko rek
comme ñoom xeeb nañ ko benn nit la xam nga mbooloo mi duñ jugandoo gaa yi yebal ay quelques personnes cinq personnes rëptaleen seen fas dem dab ko
xam nga loolu du sotti kuñ naan yow da ngay remplacer junniy nit xanaa bu ñu lay sototo day fekk mu junniy yaa fa nekk waaye ay ñaari nit ñetti nit même moom gestu na seen gaa yaa ngi ñëw taxu koo tiit taxu koo rappi rappi dawut dafa taxaw taxaw di leen xaar bi gaa yi yegsee mu ni cëpp wàcc aw fasam
ki mu njëkk a dajeel daanaka amul ay minute rek
mu fel baat bi jàll ca ka ca des fel baat bi ndekete ñaari doomi bàyyi lañ ñoom ñaar ñooñu
gaa yi ci des daw tulay xawarat aw fasam déparat bi mu déparee gaa yi jugaat topp ko ñetteel bi teg ñaar ñi faatu ñëpp ay général lañu woon ñetteel bi bi mu ñëwee ba yegg si fi ñaar ñi tëdd mu xool gis ni ñaari doomi bàyyi lañ te ay mbokkam lañ ñoo faatu
au lieu que xelam di ko tourneel mu ni déedéet kii daf ñuy fontoo parce que xamut kim naan dañuy fontoo kan la mu départ bi mu déparé ba yegg si ci tulayxa tulayxa seen ko wat taxaw aw fasam ni cëpp wàcc
waa ji nag ku mën a xeex la nag xaw naa sonal tulayxa tuuti parce que maanaam rayu ko ci rayu gu gaaw noonu nag
waaye tulayxa duma ko duma yu metti xàcc bay waaj a cor rek
waa ji ne ko jébbalu naa nag faf bar naa rey jébbalu naa léegi jeex na tulayxa ni ko dinaa la bàyyi nga jébbalu de waaye nag sa jébbalu gi xam nga nan ngay def gis nga fas wi ni mu def mu ne ko nu fas wi def mu ne ko fas wi xam nga fas ni def ñaari tànki kanam ñaari tànki ginnaaw mu ne ko waaw mu ne ko noonu nga nar a doxee ba fa ma jëm sëggal waa ji sëgg bi mu sëggee muy raam ñaari tànk yi di dox ak loxo yi mu ne ko jiitu du xam nga ma maa ngi nii ci sa gannaaw gestu boo ko defee rek rey naa la jiitu nga topp yoon waa ji jiitu di raam di dem tulayxa topp ci gannaawam ak fasam jiital ko ak fasoom sàcc na sàcc sàcc bu dagan na nag ndax ci alal yéefar boo ko jëlee dagan na ba bu ñu nekkee ci xare maanaam bu ñu nekkee ci xare lu jullit bi jëlal yéefar bi rek dagan na ko.
noonu la ko jiitalee noonu la ko jiitalee waa ji raam waa ji raam waa ji raam ba yegg si ci soldaaru jullit ñi
bi ko jullit ñi gisee ñoom ñëpp dañoo yitte te kan waa ji raam mooy kan. ab général laa la wax de ab général la la raamloo benn riwaaya bi dani bi général bi yegsee saad comme làkku perse la doon làkk saad woo ku dégg xam nga ñoom dañoo am ñu dégg làkk yi mu ne ko kaay nga traduire mu ne ko yow benn information dong laa soxla seen gars yi ñaata nit lañ bi mu ne ko seen gars yi ñaata nit mu ne ko danga may may tuuti damay laaj ndax kii ngeen ma yabal yabal mu ñëw ndax nit la wala du nit saad nee na bi muy wax mi ngi rappi rappi mi ngi lox ndax xam ngeen ni général boo xamee saada ne ko dama ni ñaata ngeen mu ne ko billa wallahi dem naa ay xare tàngam dem naa ca xare sàngam dem naa ca musuma gis nit ku mel nii saada ne ko li ngay wax laajuma la ko dama ni ñaata nit ngeen ci la ko doog a wax ni ko ah ñun kat téeméeri junni nit lañ ak ñaar fukki junni cent vingt mille personnes mbokk yi xoolal lim boobu ni mu bare cent vingt mille téeméeri junni ak ñaar fukki junni mu ne ko ñoom lañ beneen riwaaya bi ibni kathir moo koy nettali ci seer ca ca ca bidaaya wa nihaaya mook bi daanaka sorente wuñ mooy tulayxa dafa dugg ci seen biir di xeex fekk comme du soldat yépp waaye xam nga dañuy def comme benn groupe campé fii seen mbaar benn groupe campé fe fa mu njëkk a dem daal dafa yegg si rek songoog gaay di caw di dóor di caw di dóor di caw di dóor ba lottal benn waaye rek yëkkati ko tekk ci fasam rek rëppatal dem ak moom mu ne bi mu yegg see nag saad di ko laaj moo ngi riwaaya bi sorante wuñ nee na saad da koy laaj waa ji mënul tontu dafa tiit daf dem tiit ndax kii ngeen yabal nit la wala jinne loolu laay laaj ndax nit la wala jinne parce que moom mu ne dugg naa ci ay xeex def naa nangam def naa nangam def naa nangam waaye musuma gis nit ku mel nii loolu borom xam-xam yi dañuy wax ni mandarga la mu lay wan ni tulayxa ci jëmmi boppam tulayxa ci jëm bu borom bi soo taala ko ko defaloon ku mu defaloon ay may la noonu la waa ji daal di tuubee nag dugg ci lislaam walhamdulillah mujj na tuub mu dugg ci lislaam te tuub gay nekk tuub gu set mu wax jullit ñi la nga xamante ni mooy stratégie yéefar yi ak ya nga xamante ni moom la saadu soxla woon radiallahu anhu wa arda niki noonu bokk na ci mbir yi nga xamante ni danañ koy bàkkee sa tulayxa ca buzaaxa ca qaadisiya ca xare yu bare bari yoo xamante ni ay lim lañ borom xam-xam yi dañuy wax ni benn bu ca nekk tulayxa wane na ca jaloore waaye nag ndeysaan ba léegi rek jaloore yëpp taxut ñu fal ko loolu nag maa ngi koy baamtuwaat li tax ma di ko baamtu mooy ngir ngeen xam ni am na xeeti yëf yoo xam dafa ëpp ku ne na ko moytu d'accord tey l'islam àttewut suñ société yi waaye am na yoo xamante ni boo ko defee islam da lay yarlu ci misaal tey nit bu fekkonte ni dafa def jëfi faasiq caay-caay gisoon ngeen ko ci tafsiru suratu nur wala taqbalu lahum shahadatan abada fi ne même bu ñu àttewut lislaam même bu ñu àttewut lislaam am na yenn xeeti bàkkaar yoo xam nit ki bu ko defee lu mel ni tuumaal gor te fekk li nga wax du dëgg bañ àtte la lu mel ni wax sama soxna dama koo fekk ak góor wala sama borom comme ni mu xewee tey ci jamono bu ñu yegsi woon ci jàkka ji ñun dañu takk sëy ci misaal takk sëy xam ngeen laaj na am seede yow moom doo seede yow bu fekkee sëy bi ñuy takk yow rek yaa fi nekk danañ wuti beneen seede yow doo seede yàlla mu ne wala taqbalu lahum shahadatan abadan bu leen nangu seen seede waa ji daay séq ak diw bor bor bi yàlla mu ne na ngeen ko wutal seede ñu ne ana ko diw ñu ne de diw ma matul seede xam nga mbokk yi loolu dafa métti trop loolu jàpp naa ne gor soo ko def war naa dee xanaa ku goree di rek nga koy def moom jàmm gis nga am na yenn xeeti bakkaar yoo xam ne bokk gis nga ci jamono yu Omar ibn al-Khattab ah ci jamono yu Omar ibn al-Khattab waa ji maa ngi bëgg a fàtte turam waa ji la joo xam ni dafa doy waar a doy waar aayaat yi nga xam ne mutashaabihaat la ci alquran lay jël ah yàlla moom nee na foo dem ma nga fa yàlla moom ba pare mu naan alal arsi saw moom ci asamaan sa wax yu jaxasoo yi moom nu ko yàlla lay waxee di jaxase xelu nit ñi gis nga bi ko Omar ibn al-Khattab jàppee da ko làppa làpp bañ naan tey mu dee ak suba mu dee Omar ibn al-Khattab ni leen bis ni ki tey ku ma rombati ngay wax ak moom benn baat rek ma duma la yow waa ji dafa nekk ci dëkk bi mel ni xaj bu ràmm laa wax maanaam su dikkoon fekk nit ñi toog mu ñëw di toog rek gaa yi jub dem seen yoon lan moo gën a metti nekk ci dëkk yow boo ñëwee koo dendeel ci julli gi mu puus maanaam bu ñëwoon jàkk yi julli ku mu dendeel mu puus doo bëgg a dendeek moom mbooloo mu ñëw di wax ak gaa yi gaa yi jub dem ba ko fa waaye ba mu tuubee ba tuub gi dëggu ba Umar ibn al-Khattab xam ni kii rëccu na waa ji jeex takk kanam gi furi ca la Umar ibn al-Khattab joxe ndigal ñu doog a commencé wax ak moom yéen a ngi fàttaliku tabuk xoolal kaab ak ni mu màggee fa yàlla xam nga ni xam nga ni def bàkkaar yàlla wàcceb aaya ni baal naa la mbokki loolu succès la wallahi siksi la yàlla mu ni baal naa la yàlla miy baalaate mu ni la baal naa la ngir sama xel dal muy alquran di ñuy jàng ba faw waaye balaa ñu koo baal wex na xat léegi nag loolu su ma ko nettilee ba noppi mbokk yi ñu baaxee nii yu mel nii doon leen dal waaw ñun moom te tey suñ borom waxul dara ñun mbaadu ñun dañoo nekk ci ron sutura soo xamante ni yàlla rek a xam xawma ndax li ma wax leer na wala déet est ce que du ngeen xalaat ni ñun yàlla moo ñu sàng sutura rek waaye bu alquran doon wàcc ba tey dana mitti de wallahi yàllaa ñu sàng sutura la taxoon ñu jàpp xasaan ibni thabit caw ko xamnata bint jaxsin caw ko ñeneen caw leen ngir lan dañoo wax ci tuumaal waa ji abu mihjan ñu caw ko walid ibnu oqba ñu caw ko keneen ñu caw ko ngir lan dañoo naan sàngara kii ñu dàq ko ngir lan daf doon foyantoo alquran ah mbokk yi yàpp na ne yii bàkkaar nit ñi defoon ba tax alquran di wàcc di leen yéej ji yàlla mu ne yaxdaru lmunafiqun tunazala alayhim suratun tunabbiuhum bima fi qulubihim gis nga ab naafiq foo ko mas a fekk ci yam da doon tiit alquran wàcc parce que alquran day xaw yi sutura defe naa yéen a ngi fàttaliku waa jooja ñëwoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey ay nit ñi ngi wax ay wax yoo xam yu rëy a rëy rëy la yu rëy te dara du leen ci fekk dara du leen ci fekk wallahi da ngay tiit yow ci yàlla subhanahu wa taala kàddu goo xam ne yow boo ko déggee da ngay tiit te defe naa yéen yéen yaakaar naa ñi topp information yéen a ngi koy dégg waa joo xam day wax mu ne nangam nangam dina am bu jaan maa tudd yàlla xoolal yooyu wax ni mu rëyee tey doomu aadama man koo wax ba noppi di reetante dara du ko ci fekk ah loolu mbokk yi mat naa xalaat de gis nga ba yonent bi ne gaaw leen ngeen indi seen asaka yi ma jox ñoom diw ak diw ak diw ah benn waay bu ñaaw julaas ibn amrin mu naan yonent bi dafa defe ne ñun ñooy ay mbaamam yoo xamante ni fu mu jugee rek naan kaa leen indi xoolal wax jooju ni mu saltee doomi jiit leen boole ko mu giñ ci yàlla di giñ billaahi day fen waxul dëgg kii nangam kii moo ko bon xanaa li ma nekkul bàyyam dëgg moo tax di wax ay wax yàlla wàcce aaya yaxlifuuna billahi ma qaalu ñoo ngi nii di giñ naan waxuñu ko wala qad qaalu kalimatal kufri liñ wax sax génn na leen ci lislaam nee ko na tuubaat fenkat bu mag bi mu doon aaya jooju wàcc ci moom ñu jàng ko ñu di ko dégg su sa sutura xaawee ko ba yow doo mën a génnati waaye xam ngeen naafeeq sax amul jom na faf naafeeq moom ba mu defee ba mu naafeeq rek la ñàkk jom kon yu mel nii mbokk yi yu mat di bàyyi xel kon Tulayha ngi noonu ibn Xuwaylid radiyallahu anhu wa ardaa borom bi subhanahu wa taala dogal bi waa jooju yegsee biñ ko laajee mu ni man day fekkee naa ay xeex ba tàyyi waaye nit ku dëëree fit nii ku mel nii musuma koo gis tey bul fàtte ni bu leen xam bu ngeen xamul ma xamal leen ñaar ñim rey ay doomi bàyyi lañ waaye ci général suñuy général lañ bokk mu ni man bi ma yegsee gis naa leen ñu faatu li tax ma romb jàll xam naa ne ñoom ñaar ñëpp maa leen man gis nga de mu ni la tax ma romb jàll mooy xam naa ne ñoom ñaar ñëpp maa leen man moo tax borom xam-xam dañuy wax ni kii day waaye la joo xamante ni farisiyun yaadilu bi alfin général la boo xamante ni yàlla da koo dimbale muy remplacer fukk junniy nit ginnaaw dund gu yàgg goo xam ne ay regret ak i tuub ay regret ak i tuub nag bul fàtte loolu de tuub na nubuwa gi waaye ba muy fàtt ndeysaan da ko doon jooy nag da ko doon jooy loolu alaama min alaamati sidqi tawba alaamatun ñun am na ñu bari ci ñun am na ñu bari ci ñun def nañ ay tooxi doon ak i njaaxum doog a ñëw waaye da ngay dégg tuub naa jeex na affaire bi métti àggu la fenn ah loolu loolu tiit lu na de bokk yi dañuy wax ni min alaamati sidqi tawba an tataallama ma kunta tafal ila axiri ramaqin min alxayaati ba keroog ngay faatu affaire bi da lay choqué loolu nag waxuñu ko nit ki ngir mu naan ah yàlla baalu ma man nangam nangam naa xaddi yàlla mu ni déedéet qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim yow muy def bàkkar ba tilim ñuul kukk laa taqnatu min rahmatillah yàlla mu ni bul découragé mukk inna allaha yaghfiru dunuba jamia xam ngeen ni wooteeg nubuwa wax dëgg yàlla wooteeg nubuwa ah ak sa baay faatu nga takk jabaram yooyu yëpp ay mbir yu garaaw da doon am mbir yu garaaw sax xas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen kaab kaab ibni duhayr borom baanat soaadu fa nafsil yow matbuulu daf doon saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saaga laa wax di bind ay way ku talli woon làmmeñ la ah bi ko benn waay xaritam ni ko kaay ma yóbbu la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi day bis bu ma la garanti kenn du la rey mu kaalawu ñëw jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi kenn xamul ni kaab la bim nee ba xër ñett muri kaala gi rek saxaaba yi kaab rek riir wuti koog seeni jaasi ki mu àndal xarit bi daal di eh ragal leen yàlla kii maa ko jox amaan amaan mooy gis nga jullit ñi même ab yéefar soo yëkkatee bi yéefar nga ni kii maa ko garanti benn jullit du ko sañ a rey moo ko gis nga ñooñu ñu organisé woon lañ gis nga même bu dee bi yéefar la soo nee maa ko garanti maa ko garanti kenn du ko laal ci la muri kiiraay gi yonent bi gis ko mu tuub ndeysaan way yonent bi sa salam baanaat soo àddu ba fii may wax ak yow ba tey ci université islam yi way woowu dañ koy jàng ngir li ci nekk ci luga ak li ci nekk ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci noonu ba ay at ba yàlla defal ko shahada ci li nga xamante ni moom mooy nahawund imaamu zahabi nee na def na bisub nahawund jaloore yu rëy rëy rëy rëy rëy ginnaaw bi ca la faatu mu teg ci lu am solo mu ni wasaamahahullah yàlla jéggal ko kon lii bind la woon boo xam ne mbokk yi ñu bàyyi ci xel te xam ni doomu aadama nu mu mën a nekk yàlla mën na koo nattoo bàkkaar yu mel nii waaye ñu ngi ñaan suñu borom yal na yàlla sàmm ñu sàmmal lu suñu ngëm dëgëral nu musal nu ci yàqu ak yàqule waaye ñu ñaan ko an la yuziqa qulubana baada id hadana ñaan bu am solo ngoog rabbana la tuziqa qulubana yàlla bul jengal suñuy xol baada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين